jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 ñu leen di nuyu bu baax yéen sunu mbokku auditeurs yi ak euh, sunu mbokku euh, auditrices yi mbokk yi ñu dellu am mbégte dellu siwaat seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité Fallou Guèye mi nga xam ne mooy porte parole RTS. rassemblement des travailleurs africain euh, sénégalais mu bokk tamit ci euh, coalition Benno Bokk Yaakaar euh, RTAS ku ko tudd aussi sa xel dem ci euh, Momar Samb vraiment ñu koy nuyu bu baax a baax a baax Fallou am nañu mbégte ci wuy si bi nga xam ne wuy si nga ko sunu invitation ci rajo Rewmi FM ci émission pencum réew mi di la gërëm di la gërëm di la sant Abdou Khadre bi ma invité ci tey ci rajo bi ñëw nar a waxtaane li nga xam ne nii ñoo ko bokk muy réew mi kon euh, dinaa jot li itam nuyoo bi Momar mi nga xam ne nii mooy secrétaire généralu parti bi jërëjëf waa yow nga bokk ci coalition benn Bokk Yaakaar fi ñuy commencé rek mooy euh, sa Seck euh, jiite parti réew mi démb ci àjjuma ji dafa def conférence de wax na ci sujet yu bare bare bare bari wax ne nee na moom consulté na ñoo xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllum yoon euh, ku ci mel ni professeur Serigne Diop mu xamal ko na ko président Macky Sall amul sañ-sañ sampat ndëndëm ci élection présidentielle 2024 te amul benn prox ndoll aussi boo xam ne président Macky Sall mën na see jaar te Idrissa Seck moomu moo jiite conseil économique social environnemental bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar yow lan moo ci sa xalaat euh, Fallou Gueye lan mooy sama xalaat ci li Idrissa Seck wax Idrissa Seck li mu wax sama xalaat mooy que en fait li mu wax moom responsabilité am la li mu wax it du moom rek moo koy wax bari na ñu koy wax euh, Serigne Diop moom mu tudd consti constitutionnaliste la am na yeneen constitutionnaliste yu wax du mel noonu ñoo xam ne nii wax nañu lii Serigne Diop wax mais am na ñoo xam ne nii wax nañu loo xam ne nii saafaan wala nii maa kii war naa mën a bokk ci élection yi kon. débat juridique boobu lu am la. posé woon na posé woon na ci réew mi ñii gisee nañu nii ñii gisee ne. Mm-hmm. waaw loolu moom loolu lu am la kon Idriss Seck moom loolu mu wax euh, du lu bees. mais est rafet lu looy la en tant que allié. Mm-hmm. lu may rafet lu ci li Idriss Seck wax. maanaam en tant koo xam ne allier la. Mm-hmm. bokk ci Benno Bokk Yaakaar. mu yëkkati kàddu yooyu est-ce que yow jàpp nga ne position boobu loolu Idriss Seck wax. lu mu waroon a wax la war a yow noo ko jàngatee. xam nga en fait est-ce que lu ma waroon wax la que mu wax ko que mu ñàkk ko wax je pense que am na liberté d'expression wax loolu donc liberté d'expression bi day nourrir rek la démocratie et waxul loo xam ne nii du lu ñu lu ñu warta wax parce que ñi ngi koy wax parce que nit ñi ñi ngi koy ñu koy wax bari na du moom rek mooy wax loolu kon moom mu wax ko du moom rek moo wax loolu ñu wax ni moom xëy na moom li bees kay mooy li moom li mu wax ni moom candidat la te nekk ci biir bennoo bennoo bokk yaakaar xëy na loolu mooy lu waaye loolu tamit nekkul lu bees ndax ñu bari xaaroon nañu loolu ca moom comme ni mu koy waxee koo xam Idriss Seck xam aussi réew mi ni mu tëdd ak ni mu demee jàpp mën ngaa jàpp ni élection du am Idriss Seck dafi nekk ca bañ cee bokk kon noonu la ko wax tamit xëy na am na ñoo xam ne dana leen bett ndax mi ngi woon ci biir waa am na ñoo xam ne ku xam politiku Sénégal ca xaw cee am ay fan rek war ngaa mën a xam ne Idriss Seck bu moom nu mu mënti demee dana bokk ci ay élection kon loolu daanaka ñun nekkul loo xam ne nii lu ñu bett la. d'accord léegi yow euh, fàllu Guèye nga bokk ci coalition benn Bokk Yaakaar est-ce que gis-gis bi Idriss Seck am. ak ñenn ci ay constitutionnalistes yu bëri que président Macky Sall wërta sampan dëndam 2024 ndax yow gis-gis boobu nga am yéen seen waa parti. waa ñun suñu waa parti nag ñu ngi ciy waxtaan àggagoo ñu ci cappaandaw la pour xam ban position lañ ci war a am instance yi ñu ngi ñu ngi gisee pour xam naka lan lañ war a jàpp ci ci mbir moomu kon loolu duma ci mën a sori mais débat bi posé wu na débat bi posé wu xam naa ci ay fan dinañ tranché pour mën a xam ñun naka la ñu war a taxawee ci ci loolu loolu mooy wax ji. ndax mais euh, lu jëm ci wàllum troisième candidature président Macky Sall dafa am ñenn ci société civile bi ñoom jàpp nañu ne euh, mën naa yee fitna ndax 2011 gisoon nañ li fi xewoon yow ban gis-gis nga nga am ci loolu. mën naa yee fitna xëy na sax yee na fitna ba pare. xëy na yee na fitna ba pare ndax bari na ñoo xam ne nii gis nañu nii. Euh, li xew ci procès yi war a am ci Sonko li ko waral du dara loolu li nekk ca ginnaaw mooy élection 2024 yi kon yow xam nga bu wér ni élection fu mu jubee rek fitna day jóg mhm. loolu moom daanaka ci ci Afrique ak ci Sénégal mi loolu moom du nekk lu bees. waaw lu ñuy def ba moytu ko. ñuy def ba moytu ko mooy rek fexe ba li ñuy mës di xeex. que ñu ko ne di ko xeex fexe ba nga xam ne ni daal euh, lii yoon ñu teg ko muy yoon. la ñu xeexoon 2012 ci wàllu deuxième ci wàllu mandat ak Afrique yëpp doon ko xeex loolu ñu fexe ba xeex boobu mu dakk ba nga xam ne nii loolu lu ñëpp di jàpp lu ñëpp di ànd la du am ñaari gis-gis benn gis-gis dong lay am képp koo xam ne nee nga ni constitution bi nee na def nga ñaari mandat nga jeexal bu fekkee jàpp nañu ni ñaari mandat nga war a def jeexal ñu xam niñ boo defee ñaari maan da war a jeexal dem ca moroom ñëw keneen ah. ko ni liggéey mais yéen est-ce que yéen seen parti 2011 bokkoon ngeen si ñi doon xeex troisième candidature Ablaye Wade bu baax a baax bokkoon nañ ci kay ca xeex bi xëy na sax ñun ñoo buñ ko jiitewul it ña woon ca kanam ca xeex boobee kon jàpp nañu ni loolu nekkoon na loo xam ne nii jàppoon nañu ni luy jeex la ndax loolu nekk fitna bu bari la yëkkati woon ñi ci deewoon ñàkk seen bakkan bari na réew mi ñi tiitoon ci réew mi bari na yàlla def na ba ñu jéggi loolu wax dëgg xalaatuñu bëggatuñu woon di dundaat lu mel noonu ci réew mi kon li nga wax lu am la euh, waxu mandat mën naa yëkkati fitna boo xam ne nii kenn xamul xëy na fa mu ñuy yóbbu ba tax na nit ñi war nañoo ànd ak dal ànd ak dal même bu fekkee ni xalaat yi day wuute ñu ànd ak dal goo xam ne nii danañu war mën a régler loolu ba mën cee ba nga xam ne du mën nii loolu dootu mën a dellu siwaat doon ab xeex bu ñuy war a xeexaat waaw mais xam nga Fallou gi yéen euh, ak Momar Samb seen parti RTAS mu nekk euh, parti boo xamante nii ñëpp xam nañ euh, taxawaay bi nga xam ne yàgg na ko taxaw ci Sénégal comme ni nga ko waxee sànq 2011 yéen bokkoon ngeen si ñuy xeex troisième candidature Abdoulaye Wade est-ce que yanu na maanaa 2023 ngeen di si jàppale président Macky Sall probablement bu présenté woon. xam nga ba léegi néew ma dañ koy jàppale wala duñ ko jàppale nee naa la waxtaan wi. mi ñu ngi koy am ci biir parti bi. àgg gu ci fiñ ciy fu ñuy fu ñuy taxawee nii lii lañ parti lii la parti bi jàpp. mais daaw heure bi man 2011 fekkoon na ngeen jël décision heure bi xanaa. waaw 2011 ni mu ni mu demee mooy nekkuñu woon ci position wu majorité présidentielle ñu ngi nekkoon ci opposition bi jàppoon nañu ni leeroon nañu lu leer la woon que ni ci ñun xeex boobu waroon nañ ko xeex ndax Abdoulaye warul woon nekk candidat. Hmm. waaye bii yoon. dafa dafa dafa mu wuute. mais lu mu am amag wuute du tare ñun. ñu ngi ciy waxtaan te bu jotee dinañ génn li nga xam ni mooy suñu position ci loolu. Mm-hmm. mais li ma la wax mooy li am fitna moom lépp lu ko yëkkati war nañ koo war nañ ko moytu. te bu fekkee nag lu jëm ci am réew loo xam ni dafay indi bakkan ay bakkan da ciy rot ay bakkan da ciy war nañoo fexe ba loolu ak dal am ci ñu fexe ba ñi nga xam ne ni ñoo ko seq acteurs yi société civile les politiques ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci constitution bi di ko lijjanti mu conseil constitutionnel ak ñëpp ñu war a xam réew mi fi mu toll ak li ñu wër fi mu toll ba lii nga xam ne nii moom la ñu dëgmal kenn kat bañ ci ay bakkat bañ ci rot te mën koo régler ci ci nii wala ci naa ba nga xam ne ñi war a jongante dañu leen jongante nag ngir lan ngir rek njëriñu réew mi. Mm-hmm. waaw d'accord jërëjëf euh, Fallou euh, Fallou Guèye mm-hmm. euh, Fallou Guèye yow nga bokk ci RTS mm-hmm. yow yaay yor seen seen kàddu lu jëm ci wàllum troisième candidature xam naa ne. du ñàkk ñu euh, taxaw si tuuti ndax dañoo gis ne dafa bëri ay réew yoo xam ne mbirum troisième candidature indi na fa ay ay jafe-jafe euh, fii ci Sénégal 2011 li fi xewoon lépp euh, gis nañu ko presque boo xoolee esprit référendum bi moo nekkoon mbirum troisième candidature bañ la xewoon 2011 am mais def nañ fi référendum ñu si bari faatu nañ wàcc nañ si mbedd mi mais au finish gis nañ ne ba léegi situation boobu la ñuy dundaat 2023 bi dëgg la li nga wax li nga wax dëgg la euh, xeex bi ñu xeexoon mille 2011 ñun ñëpp ñu xeexoon ko wax dëgg ci loolu la woon ci mandat waxu mandat que mu jeex. Mhm. te ñun ñëpp ni ba ñuy dem ci référendum bi deux mille deux mille euh, deux mille seize ñëpp jàppoon nañu ni loolu moom jeex na wax dëgg moom loolu mooy li nga xam ne nii moo fi jaaroon te histoire mooy loolu mhm. bu fekkee dem nañ nag tey ba jamono ba loolu sax président Macky Sall ak ña ko wër ak ñëpp neewoon nañu ni ñoom lii fi la yem mhm. ñoom ñëpp wax nañ ko. Hmm. loolu lu ñu enregistré la kenn du fi nekk di ko weddiwaat. Hmm. loolu moom lu am la. li am moom mooy li am dëgg moom mooy dëgg rek hmm. li dul dëgg du dëgg. loolu moom mooy li am waaye nag bu ñu demee dem tey ba am lu mu demee ba ñun ñu am fu ñu féete lu ñuy waxtaanee dañ koy waxtaanee. par par loo waru cee am li war a am rek mooy njariñu réew mi. macha allah bu ñu jiitalee njariñu réew mi rek ci xam ne lii réew mi njariñam mooy nekk ci dëgg nañ ko teg ci dëgg rek. ci bañ ci am par parlo wala ànd ak loo xam ne nii du dëgg. d'accord parce que buñ ci àndee ëllëg dëgg ñu dinañu dinañu dab. d'accord mais ci biir coalition benn Bokk Yaakaar dañ see gis ñoo xam ne dañoo waxoon ne président Macky Sall warut a présenté wu 2024 ñu dàq leen ku ci mel ni euh, Sori Kaba ku ci mel ni euh, Moustapha Diakhaté Aminata Touré ak euh, taxawaayam mais gis na sa Seck na Macky Sall warut a présenté wu 2024 est-ce que njorto dara fekk ko ci. moom Idrissa sa wax na ko moom kay nee na sax CSE bi nga xam ne mooy président xëy na da léegi ñu dàq ko ci ñu dàq ko parce que comme nii dañ doon wax xëy na un pied dedans un pied dehors benn tànk ci biir benn tànk ci biti daanaka dañuy dem ci biti kon loolu bu amee mais wax na it ni waxtaan wi dina nekk ci biir benn Bokk Yaakaar ndax mi ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar waaye loolu président bi nga xam ne nii moom mooy nome moom mooy fal ak di folle mën na am na gis-gis ba nii xëy na dina ko folli wala xëy na mu ne du ko follee folleegun dina ko bàyyi ba waxtaan wi gën a yaatu ci biir Benno Bokk Yaakaar ba xam nu muy tëddee loolu moom beneen lecture lay am beneen gis-gis lay am ci ki nga xam ne nii moom moo am sañ-sañu fale ak folle. ak folle d'accord mais Fallou gi euh, tey euh, Benno Bokk Yaakaar gis nañ ne euh, mën nañoo wax ne amul kenn koo xam ne mën nañoo wax ne mooy plan B bu Benno Bokk Yaakaar est-ce que gëntoon yomb. benn bokk yaakaar waxtaan ci seen biir ba trouver consensus am koo xam ne moom la ñu jiital ku dul président Macky Sall ndax loolu bokkul ci li mën a indi jàmm te aussi bu ngeen jàppee ne def ngeen ay réalisation bu dee jàpp ngeen ne tamit grande coalition ngeen jàpp ne coalition bu mën a gagné réew la est-ce que loolu gëntoon yomb pour stabilité Sénégal boo xam ne pétrole be gaz bi Sénégal nekk sele bu yoon réew yu bëri teg ñu bët waxuma sax gën a yoon goo gën a yomb mais li ngay wax moom laay li ma waxoon ci njëlbeen rek maanaam wut ay pexe yoo xam ne nii li ñuy jiital mooy jàmmi réew mi su fekkee ni yoon woowee wala wut keneen koo xam ne ni buñ ko tegee loolu mooy jàmmi réew mi mooy tax réew mi dal xëy na loolu mooy li gën waaye ñeneen tam mën nañoo gis ni ah Macky Sall mi nga xam ne nii moom mooy def li muy def ca li muy def ñu gis ni lu baax la kon ñooñu it mën nañoo jàpp ni kon jàmmi réew mi mooy moom mu présenté waat parce que boo ko joxee keneen xamuñu keneen kooku lu muy indi ak lu muy def donc ay gis-gis as gis-gis lu wuute la waaye li ci am ba am ci liy dëgg mooy li ma la wax rek moom laa lay waxaat liy dëgg bay dëgg mooy nañ taxaw ci dëgg rek bu fekkee dëgg day saf kaani na saf kaani bu fekkee day saf suukar yi na saf suukar mm-hmm. waaye bu ñu defee leneen loo xam ne saa faan la ngir ngir lii wala ngir laa boo liggéey it dañ ci dellu siwaat d'accord mais oh, euh, société civile bi ñoo ngi doon wax euh, toog waxtaan euh, def dialogue est-ce que jarutoon dàq élection présidentielle yi waxtaan ngir ngir jàmmi réew mi ndax dàq élection yi ngir waxtaan ngir jàmmi réew mi est-ce que ëppul solo ñu Sénégal toll foo xam ne mën naa dugg ci kaaw nga xam ne mën nañoo xam fan lay commencer mënuñoo xam fan lay yem mais dàq élection yi Euh, waxtaanee ko ba trouver consensus est-ce que nekkul loo xam ne jàpp nga ne solution la. xam nga xam nga dàq élection man gëw ma ni gëw ma ni gëw ma ni solution la ndax élection moom am réew lu koy doxal mooy ñu am calendrier électoral kenn ku ci nekk xam lu nekk kañ lay war a am ak nag naka lay war a amee. waaye dàq élection ndax ma Masamba nee na damaa bëgg doon candidat wala ma Demba nee na nee na ko yow doo doon candidat man maay doon candidat loolu ko day doon dañ koo bëgg a tënk ci ay Masamba ak Mademba waaye tënkuñu ko ci li nga xam ne nii mooy doxalinu réew mi mooy njariñu réew mi kon li am solo mooy Masamba ak ma Mademba ak kum ci mënti doon nañ nañ yoon tegu ci yoon ñi nga xam ne nii ñoo war a doxal ñu doxal ci yoon teg ko ci yoon loolu mooy njariñu réew mi waaye buñ ko defee noonu nañ ko dàq ndax ndax diw wala ndax diw loolu baaxul ci réew mi ca defe naa nekkul li gën mais kon tension politique bi tollul tollul dàq yi tension politique bi lan la tension politique bi nee naa la même 2011 ak lu jiitu 2011 ay élection fu mu jubee tension day am waaye bu élection yi weesoo tension yi day danaan day daal jeex tàkk mhm. ndax nit ñi dafa bari ñoo xam ne nii politique rek la ñuy dunde moom la ñuy xëyi moom la ñuy gonte moom la ñuy fanaanoo mhm. donc te ñoom politique bu politique bi lañ cay séentu mooy <clears throat> mooy falu rek mooy seen teraanga kon boo leen ko naree ñàkkal teg nañ ci seen bakkan kon ba tax na jiitaluñu réew mi waaye seen i seen njariñ bopp lañu jiital. ba tax na ñoom politique bi mu jaral leen loolu. waaye su fekkee wax dëgg réew mi moo tax mën nañ koo waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy dëgg. ca nag bu fekkee am nañ ay institution institution yooyu. dañoo war a def yoon mi nga xam ne li nga xam ne mooy dëgg. mais waruñu cee waruñoo def li nga xam ne day neex ma sàmba wala day neex ma demba. kon daal dialogue politique bi waruñu koo tënk si lu neex ma sàmba wala lu neex ma demba. déedéet waruñu koo tënk ci lu neex ma sàmba wala lu neex ma dañ ko war a tënk. ci li nga xam ne nii mooy njëriñu réew mi. waaw mais bu ñu gisee ne bu ñu gisee ne élection la yoo xam ne mën naa indi kaw euh, est-ce que jëru dàq. ndax day ndax dañoo gis ne ñi nga xam ne tey ñooy ñaari candidat yoo xamante ni tey boo xoolee euh, tension politique bi li ñu koy wax wax mooy président Macky Sall ak Ousmane Sonko mooy Macky Sall war naa bokk wala warta bokk ñii ne bul fi bokkee ndax 2011 lii moo fi xewoon ñii ne Ousmane Sonko toll na ci politique noo xam ne boo ko éliminé lii mën naa am ci réew mi ba pare mu am ay dossier ci ci kanamu euh, ci kanamu yoon ñu jàpp ne problème bi boo xoolee presque foofu la nekk ak lu mën di xew daal tension bi lu mu yëg-yëg jàpp nga ne élection yi waruñu ko dàq Abdou Khadre dama laa wax léegi ni la histoire politique gu Sénégal ci élection daanaka nii la ma a demee. Ah, ok. Abdou Diouf Ablaye Wade. du la bees 98. Abdou Diouf Ablaye Wade 98 triangle sud. du la bees ba Ablaye Wade ni woon damay créer gouvernement parallèle. àggoon nañ ba ci loolu. Mhm. donc tension politique yooyu. lii nekkulul lu bees xëy na lii sax man ci sama seetlu ak sama vécu lii moo gën a <laughs> moo gën a tuuti. moo gën a tuuti man li ma fekkee. wala kon lii est-ce que du presse beeg réseau sociaux yeeg. ku ne am accès ci média jàpp naa nii exagération am na ci. exagération am na ci waaye nag teewul ni tension bi am na. parce que li ma la wax léegi bari na ñoo xam ne nii élection rek la ñuy xaar politiciens yoo xam ne nii élection dong la ñuy xaar élection mooy seenu nawet donc bu nawet jotee seen nawet jot ñu war a jaay seen ñu war a jaay seen investir bu loolu buñ ko deful jàpp nañu ni ñoom jeexal nañu kon. seenu dënn lañ ciy demee seen xadar lañ ciy demee ndax seen bakkan lañ ci teg du doon njariñu réew mi mais ñoom seenu seenu seenu teraanga mm. ak seen ndombay tànk ñu ci war a am loolu moo koy indi bari na ci xale yoo xam ne gis nga leen ñuy xataraayu ci mbedd mi wax dëgg boo leen laajee lu lu waral lii yan idée la ñuy défendre yan ban projet la ñuy défendre bari na ci ñoo xam ne xamuñu ko mais jàpp nañu ni aw fas la ñu am kon fas wii bu leen rawee rek dootuñu doon dara ndax gis nañu ci dëgg-dëgg bare na ñoo xam ne nii xëy na duñu woon dara politique daf leen dara du dëgg. Mhm. newuñu woon dara politique ñëw daf leen dara kon bu ñu gisee loolu dañuy jàpp ni ñoom politique daal mooy yoon wi mooy yoon wi ngir mën a doon pour ngir mën a tekki. waaw tekki moom dootul am njàng wala am lii am laa tekki mooy nga nga sóobu ci politique bi. Mhm. kon jaral na leen ko. kon tension boobu tamit lu koy yokk loolu la. yaakaar naa ni kon bëgg a baara réew mi. Hmm? société civile di woote naan nañ baari yogoo ci waxte waat waxtaan ci ci waxtaan ci laa ngir lan ngir dàq élection yi loolu du dëgg du yoon hmm. ndax politiciens yi moomuñu réew mi réew mi ñi ko seq ak ñi ko ñu ko bokk dañoo bari te ñoom ñëpp li ñu bëgg mooy njariñu réew mi mooy jàmm ak salaam ak réew mi kenn ku ci nekk di mën a dem di mën a dikk di liggéey ngir sa bopp ngir sa njaboot kon bu fekkee ne loolu la dañoo war a xam ni kon ñi nga xam xam ne ñooy laaj réew mi wala di yëngatu ci réew mi nekk ay acteurs war nañoo xam ne moomuñu réew mi ci kenn ku ci nekk dangaa war a tënku ci li nga xam ne ni mooy dëgg. d' accord euh, Fallou Gueye ñu daal di wax ci euh, li nga xam ne tey mooy jëm ci mbiri euh, Ousmane Sonko njiitul Pastef ay ñoñam ak ay xeltukat ñu bari dañu njortu ne dañ ko bëgg a éliminer ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal jaarale ko ci procès bi nga xam ne moo dox digganteem tey ak Mame Mbaye Niang aju si wàllum diffamation ñi jàpp loolu Euh, ndax jàpp nga ne li ñu jàpp mooy lu wér wala jàpp nga ne li ñu jàpp nekkul loo xam ne lu taxaw la. dañoo njort rek comme ni nga ko waxee ay dañoo njort rek mën nañoo njort loolu njort woon nañ ko ca élection ca jugement bi loolu amul. bañ ko njortoo ci jugement bi ba Ousmane Sonko li mu doon wax mooy loolu looloo waroon tax ba sax da doon def ay meeting trois jours avant. procès bi loolu yëpp lam ci daan wax mooy parce que dañ maa bëgg a ñàkkal dañoo bëgg def ba que man du bokk ci élection yi waaye ba jugement bi génnee la génn farul farul ay droit civique nga nga xam ne nii war naa mën a bokk ci élection yi ah appel am na nag ba ñu war a defaat jugement bi altine bi mën nañoo njort loolu ñoom ak ñeneen ñi nga xam ne nii mën nañoo am na ñeneen ñoo xam ne mën nañoo njort loolu comme ñi am na ñoo xam ne nii mën nañoo bañ a njort loolu waaye loolu mooy conséquence su li nga xam ne ni mooy li am lan mooy cause yi cause yi mooy moom ci boppam mooy lu ko dal lu ko ci dal moo ko teg boppam ndax politique du taqal nit politique du dëkkal nit fu mu dëkkul politique du taqal deru nit politique mooy wax li nga xam ne ni mooy njëriñu réew mi boo gisee ñoo xam ne ni ni ñu téyee réew mi du dëgg du yoon danga koo war a xalab danga koo war a xeex hmm. waaye di teg dëkkal nit fu mu dëkkul kenn ku loo ko def nga mer ku loo ko def du la neex ba tax na ñun politique war nga am discipline boo xam ne ak intelligence politique boo xam ne nii da ngay wax ci liy dëgg rek ndax loolu donc mooy li tax ëllëg ñu mën a tabax suñu réew ci dëgg. mais mais procès euh, procès boobu noonu lu jëm ci wàllum vingt neuf milliards yu Prodac yi dégg nañ Amadou Ba ne rapport am na Mame Mbaye ñaane rapport am na ñu bari aussi euh, wax nañu si euh, loolu tamit est-ce que li intéressé intéressé woon Sénégal yi du fexe leeral vingt neuf milliards yi. maanaam euh, nan la ñu ko jëfandikoo. waaw li intérêt Sénégal yi du lool rek sax ñu leeral vingt neuf milliards yi li intérêt Sénégal moo ñu leeral lépp parce que lépp lu fi nekk Sénégal yi ñoo ko moom dañ ko teg ci ay loxo ni leen sàmmal leen ñu ko gérer leen ñu ko kon Sénégalais yi dañoo war saa yu ne di leen leeralal li nga xam ne nii seen alal la fan lañ ko dugal ak nan lañ ko doxalee loolu mooy li nga xam ne nii mooy li war mo loolu la ñu war a def mm-hmm. kon bu coow jubee sax bu coow jubee lii dëgg lii yoon mooy que ñu leeralal loolu Sénégal yi waaye kenn ku ci nekk dangaay da ngay politique te lii ngay politique mooy dangaa bëgg di leeral Sénégalais yi ngir Sénégalais yi dénk la ndax nga ni ñii ñu dénk mënuñu ñii ñu dénk wóoruñu man bu ngeen ma dénkee dinaa leen wóoral dinaa leen dencal dinaa leen defaral kon yow boo tuumaalee ay nit ba ñu war laa gëm nga ndax nga yaa ñuy xoolal war nga ñoo indil ay firnde yu wéer yu wër ni lii nga wax nii lu am la ba tax ñu war a ànd ak yow xeex ak yow ci loolu kon loolu mooy dëgëral sa wax boobee waaye su fekkee ni waxu kasaw kasal wala waxu politicien da ngay daal di mel ni ñooñee ngay tuumaal ca loolu baaxul ci politique ndax boobaa dootoo xam koy gëm Sénégal yi seen bopp dootuñu xam ku ñuy gëm ndax ki ñuy tuumaal liñ koy tuumaal dëgg la wala moom kiy tuumaal est-ce que moom dafa bëgg moom tuumaal nit rek pour pour ñu jox ko ndax loolu moo tax loolu baaxul ci réew mi. d'accord euh, Fallou Gueye euh, ñi nga xam ne ñooy partenaire financier technique du Sénégal ñoom euh, fan yi ñu génn am na benn réunion boo xam ne seqoon nañu ko ak yenn ci ministre ci gouvernement bi ñu si mel ni premier ministre ministre des finances ministère waa ministère de l'économie ministère de la justice ministère de de l'intérieur ministère des des affaires étrangères ñu wax ne nañu apaiser tension politique bi waaye tamit ñoom wax nañu ne xaalisu Covid bi. Euh, nañu leeral enquête boobu nee nañu tamit ay rapport cour des comptes bëgg nañu publier li nga xamante ne mooy rapport boobu mu mel ni partenaires financiers yi ñoo ngi bàyyi xel bu baax a baax euh, Sénégal ci tension politique bi waaye tamit ci xaalis xaalisu réew mi ci anam bi ñu ko yoree ñoom li tax ñu wax loolu nag ñoom dañuy yëkkati seen xaalis di di financer Sénégal. Hmm. dañuy yëkkati seen xaalis di investir ci Sénégal. te dañoo bëgg loolu ñuy ñu ñuy investir mu jural leen kuy investir nag pour nga investir fa ngay investir dafa war a am ak dal bu amul ak dal la ngay investir danga kon doo doo doo sax investir doo sax investir kon loolu ñoom loolu mooy seen yitte loolu mooy mooy li xam ne li leen ñor ca wax nañu dëgg ndax réew moo xam ne nii dafa am yëngu-yëngu li tax investisseurs yu bari demuñu ci yeneen réew di ñëw Sénégal c'est parce que dañoo am stabilité mm. ca wax dëgg nii yor réew mi tey liñ doon jaay ci invest liñ doon jaay investir bi investir yi di ko jënd mooy Sénégal réew muy stable la réew mu dal la réew mu am paix la réew mu am jàmm la kon loolu moo taxoon yenn investi investisseurs yi di ñëw waaw su fekkee nag loolu moo leen indi woon mais ñu jékki-jékki gis ñu ngi ñu ngi jëm ci fii ak ay weer ñu ngi jëm ci élection fitna jóg mm-hmm. seen xel du dal mm-hmm. ba tax na ko ñu ne ah ñun kat li ngeen ñu jaayoon ban jënd ko ba tax ñu ñëw ñi ngi gis leneen kon dimbali leen ñu ba indil ñu jàmm ak salaam ba ñun ñii kat li nga xam ne nii dañ ko investir fii ñu mën koo sàmm ba ñun ñu mën cee gis suñu bopp Sénégal yi mën cee gis seen bopp loolu lu jaadu la. loolu lu ñu war a rafetlu ndax noonu ñu ko bëggee noonu la ko sénégalais yi bëggee. lu jëm ci rapport yi. lu jëm ci rapport yi mooy li ma la wax lu jëm ci rapport yi dëgg la parce que ñoom ñu koy laaj investisseurs yi ñun ñii di citoyens ñun ñoo ko war a jëkkat laaj parce que constitution bi moo ni. gàncax geeg ressources yeeg yépp ko ko moom citoyens yi moo ko moom ñun ñoo moom réew mi sa appartient aux citoyens donc ñun ñun ñoo ko moom dañoo dénk ñu ñuy géreel kon ñun mbirim yépp dafa war a leer te ñoom bëgg nañu lépp di leer ndax bari na ñoo xam ne nii dañuy jox edd di ko jox société civile bi duñ ko jox sa gouvernement bi parce que xëy na wóoluwuñu politiciens yi dañ koy jox société civile bi ngir ñoom ñu mën a yënguti ci wàllu social bi kon loole ñuy jox bëgg nañu muy feeñ ci askan wi te ngir mu feeñ ci askan wi il faut que askan wi an nekk ci dal ak jàmm ak salaat lu jëm ci wàllum rapport yooyu dañu gis ne bëri na fi rapport yoo xam ne épinglé na ñu bokk ci euh, gouvernement bi yor ay ministère wala ay direction mais ba léegi nii ñuy waxee nii amul kenn koo xam ne euh, maanaam euh, traduire nañ la devant la justice loolu moom lu mu doon loolu moom du dëgg du yoon bu fekkee ne lu am la du dëgg du yoon képp koo xam ne nii <laughs> li ñuy waxaal moom li ñuy waxaat rek képp koo xam ne nii dañ laa jox suñu alal moomoo ko donn woo ko dañ laa dénk nga ni mën ngaa yore am nga compétence bi am nga mën-mën bi ñu dox la ko mm-hmm. danga ko war a doxal ngeen njariñu réew mi mm-hmm. boo ko defee neneen lu dul yoon ba ñu gis ni yow gi def nga lu dul yoon ci ñi fi nekk institution bi di ko contrôler gis loola dañoo war a teg dañ laa war a daan kon loolu nekk loo xam ne nii buñ ko bàyyee bàyyeele baaxul ci ñoom baaxul ci réew mi. waaw jërëjëf euh, Fallou Gueye yow nga bokk ci coalition benn bokk yaakaar nga nekk euh, porte parole RTAS euh, rassemblement des travailleurs africains sénégalais Fallou candidature Ousmane Sonko bu ñu ko gàllankooroon tey éliminer ko ci élection présidentielle deux mille vingt quatre ndax jàppoo ne mën naa indi ay yëngu-yëngu ci réew mi. yëngu-yëngu yi wax nañ ko léegi am Abdou Khadir mi ngi am ci réew mi te ga te euh, ñàkkaluguñu ko ay ay ay bokkam ci élection yi yëngu-yëngu yaa ngi nii ci réew mi kon ñi nga xam ne nii bari nañu ca ànd ak moom te bëgg mu doon candidat wax dëgg li doon rafet li doon baax mooy ñu bàyyi ñëpp képp koo xam ne nii képp koo xam ne nii war ngaa doon candidat ci mën ngaa doon candidat ñu bàyyi la nga doon candidat parce que joŋante boobu mooy tax sax ñu mën a xam que ni démocratie am na jongante boobu mooy tax ñépp ci doomu réew mi ñépp kenn ku ci nekk nga tànn ki la doy expression plurielle am loolu nekk na loo xam ne nii mooy jàmmi réew mi mooy démocratie réew mi et kon defe naa ni bu fekkee ni euh, képp koo xam ne nii am nga am nga sañ-sañ am nga éligibilité amul dara loolu war a tere nga bokk ci élection yi war nañ laa bàyyi nga bokk ci élection yi waruñoo def dara dara loo xam ne nii dañ koy def ngir xañ la sa sa sa droit yi nga xam ne ni am nga pour laaj réew mi ca bari ñoo xam ne nii ànd nañ ci yow am yaakaar ci yow ja bëgg jàpp ni yow mii kat yow ñoom ànd ñu ak kii yow lañu àndal parce que boo leen ko xañee xañoo ko Masamba mais ñoo ñëpp doon ay Sénégalais ñoom nga xañ seen liberté bi ñu am ak seen droit bi ñu amoon pour mën a exprimer seen choix ci diw wala ci ci diw. mais Fallou Gueye lii ngay wax nii est-ce que yéen a ngi koy wax yéen waa RTS. yéen a koy wax président Macky Sall ndax discours yi ngay tënee nii wuute na lool ak euh, ñenn ñi yenn alliés yi li ñuy wax. yenn alliés lu ñuy wax yenn alliés li ñuy wax mooy képp koo xam ne ni bépp sénégalais loolu c'est constitutionnel bépp sénégal boo xam ne ni am nga âge am nga remplir nga critères yi nga war a tax nga bokk ci élection waruñu laa xañ nga bokk ci élection yi loolu dëgg du yoon waruñu instrumentaliser déedéet déedéet waruñu ko def parce que bu fekkee ni loolu baaxul parce que démocratie mooy la parce que bu même su fekkee ne yow bokku ñu gis-gis mais loolu richesse la war a doon bokk ñu gis-gis mais yow gis-gis bi nga am man gis-gis ma am jàpp ma ni man maa moom dëgg maa am dëgg mais jàpp naa ni man nii laa gisee yow nga gisee neneen mais ñun ci li ñuy gis yëpp mooy mooy réew mi ak njariñu réew mi kon bu joŋante ñëwee war nañoo bàyyi ñëpp ñi nga xam ne nii am nañu yéene ci defar réew mi yéene ci liggéeyee réew mi ñu jox leen chance kenn ku ci rek compétir ak ñëpp ñi nga xam ne ni ànd nañu ak ñoom ko ñu tamit boo amee seen ay choix ñu def ko ñu def seen ay choix loolu mooy dëgg loolu mooy yoon parce que bu ñu ko deful mais bu ñu ko defoon président Macky Sall mi falu te du woon falu ñi ko jur Abdoulaye mi falu woon démb du woon falu kon loolu baaxul baaxul baaxul cim réew parce que loolu li muy indi mooy da da da ngay fàtt ñoo xam ne nii te ñoo ñu mën nañoo beddee ko doon leneen Mm-hmm. wëlbatiku doon ay terroriste wala leneen parce que mayuñu leen fu ñu exprimer ci si fu ñu fu ñu waxee ci réew mi te dañoo am sañ-sañu di wax ci réew mi mm-hmm. d'accord léegi euh, Fallou Gueye <coughs> si ñu gis ne arrestation yi maa ngi mel ni Tulle ak Malle ci côté euh, ci côté Pastef euh, ñu bari ñu teg leen loxo fi mu ne nii rek Bassirou Diomaye Faye jàpp nañu ko ak ñu baree baree bare ñoo ci kaso bi ban gis-gis nga ci am maa ngi koy maa ngi koy dégg maa ngi koy dégg wax dégg nag xamuma dossier ku kaa bu ci nekk nu mu demee wax dëgg xamuma kaa bu ci nekk nu mu demee et Bassirou ba may ñëw léegi nii laa koy sama oto laa koy dégg euh, ci rajo ci réew mi ngeen koy wax mm. euh, que jàpp nañ ko biig mais li ñu wax li ñu wax ni moom lañ ko jàppee mooy presque li ñuy jàppee ñu ci bari ci ñoom outrage waxal waaw diffusion de fausse nouvelle outrage magistrat nangam nàngam mooy li ñu wax sànq rek euh, ñun rtas daanaka suñu ndaw bu ñu nekkee ci ndaw nekk étudiant nekk élève nekk ci politique bi li ñu mës di wax mooy mhm. liñ ñu mës di wax mooy politique du xal du du du du tam nit ki dëmm mhm. politique du saaga mais politique ay xalaat la dangay ngay nga xam nga xamle et bu ko defee nit ñi li leen di éduquer li leen di mooy dañuy xam mais dal ci kaw nit ñi waxal nit ki loo xam ne du dëgg du yoon loolu du politique kon képp ku ko def wax dëgg war ngaa jàpp ne yow ko loo ko defoon du la neex kon képp koo xam ne nii da nga dénk muy def nga nga tuumaal ko wala waxal ko loo xam ne du noona ah loola ca fekk yow a yaa ko teg sa bopp mais est-ce que ñi gis ne euh, dañu harcèlement la bunduxataal la harcèlement la bu ñu xatal parce que ñoom xëy na ñoom ñoo def harcèlement bu ñu xataal ci ñi nga xam ne ñooy ñooy ay magistrat wala ñooy leneen ñooy yëkkati ay kàddu yoo xam ne nii yu ñagas wala yu tegginiwul di ko teg ci deru ñoo ñi nga xam ne nii dañ leen a dénk ñu liggéey kon ñoom seen wàllu bopp ñoo war a xool ni ñuy doxale ak ni ñuy waxee ak ni ñuy defee waaw mais xam nga Fallou Gueye aussi dafa am ñu bari ñoo xam ne euh, même bu dee tey jàpp bi peut-être nit mën naa def loo xam ne li mu wax jégg na dayo war nañ koo jàpp même bu dee tey dafa bokk Pastef wala mu bokk Yewwi mais lu kooku def bokk Pastef ba ñu jàpp ko dañuy gis ku bokk ci APR wala Benno Bokk Yaakaar def lu toll noonu wala def lu ëpp loolu sax te te dara du ko ci fekk am na si ay kaa yu bari yoo xam ne comme kaaw euh, Amathou Sane Camara bi dañ koy euh, faral di wax lu bëree bari ak yeneen kaa loolu aussi dafay jàpp nit ñi dañuy jàpp ne kumba mu am ndey la ak kumba mu amul ndey. kumba am ndey kumba am ndey ak kumba amul ndey mu baaxul baaxul ci réew. mais ci li may dégg toujours ñu ngi koy wax mooy benn cas boobu la ñuy évoqué mooy man Suzanne Camara benn cas boobu rek laay dégg ñu ko évoqué ci ñi nga xam ne nii ànd nañu ak. même Pape Malick Ndour ak ci ci benn Bokk Yaakaar mais ñi ñuy wax ñi ngi ci campagne politique ñooñu ñi ngi ci campagne waxuñu waxuñu ay magistrat waxuñu ay personnes assermentées mais ñi ñuy wax ay diw la ñuy wax kon loolu ci wàllu politique ca tey ba tamit sax même bu fekkee ci wàllu politique sax tegginewul tegganiwul ndax langage saaga du tax nga am dëgg waxal nit ki lu lul dëgg du tax nga am dëgg li am tax ngay am dëgg mooy wax dëgg rek. waaw mais bu dee tey euh, tooñ magistrat gis nañ fi Mansour Faye rapport cour des comptes bi mm, jël na magistrat yi traité leen de politicien euh, Moustapha Diop bi muy fi nekk euh, ministère ministère bu mu ministère délégué bu mu mu jiite woon bi muy déclaration patrimoine bi ay magistrat ñëwee bureau mu dàq leen euh, dal ci seen kaw yëkkati kàddu yu ñàkk war ma teg ko ci seen kaw loolu aussi dañu koy faral di gis. waa loolu moom bu fekkee nii gis nga ko ca mu ca muy doon lu am du dëgg du yoon du dëgg du yoon ca war nañ koo ŋàññ <clears throat> war nañ koo ŋàññ war nañ koo dénoncer war nañoo fexe ba loolu dakk ndax ñi nga xam ne nii dañ leen a dénk te ñoom ñu war a joxe exemple war a doon modèle waru ñoo doon ñoo xam ne nii ñooy def lu dul noona kon ñooñu bu fekkee ni def nañu loolu yoon dafa war a dal ci seen kaw ni yoon di dalee ci kaw ñeneen ñi ngi xam ni feneen la ñu bokk war waruñoo dal ci kaw kenn ndax dafa bokk ci fii wala dafa bokk fee mais doon dañoo war dal ci kaw nit ñi ndax dañoo dañoo jalgati yoon moo xam foo mënti bokk nag moo xam ci fii nga bokk ci nguur gi nga bokk wala bokkoo ci nguur gi moo xam ministre nga wala moo xam doo ministre ndax kenn gënu fi kenn ab juddu dégg joxuñu joxuñu la fi kenn daraja boo xam ne nii am nga ko te keneen koo xam ab Sénégalais la amu ko kon loolu bu amee du dëgg du yoon. d' accord léegi euh, fàllu gi gis nañ ne Ousmane Sonko dafa war a wuy ji le 17 ci lu jëm ci procès en appel bu moom ak Mame Mbaye Niang te gis nañ ne saa suñ ko woowee presque économie réew mi day taxaw dëkk bi ñu baree bari tiit fenn fu nekk ñu yóbbu fa li nga xamante ni mooy euh, mooy ay takk der te ñi nga xam ne ñooy coalition Yewwi Askan Wi seen député yi def nañ conférence de woote nañu ab mobilisation altine euh, lan nga ci wax. bof li ma ciy wax rek mooy xëy na ñoom ñi ngi def li nga xam ne nii moom la ñu war a def mooy développer rapport de force loolu lañu war a def ndax politique tamit loolu la. politique mooy nga fexe ba développer rapport de force fexe ba rapport de force yi nekk ci sa faveur donc loolu lañuy def xëy na pour jàppale ki nga xam ne nii ci ñoom la bokk kon ñoom ñi nga nekk ci li nga xam ne nii xëy na mais xëy na est-ce que jar na ko parce que ki nga xam ne nii moom la ñuy war a juger neewoon na na ñëpp toog seen kër moom dina wuy ji ci lu mujj naam sax lu jiitu loolu ne dana wax na ñëpp génn mais mujj gi dana wax na ñëpp en fait toog seen kër moom dina wuy ji kon da ci am solo mooy li ñu wax rek nañu bàyyi ñi nga xam ni ñoo war a juger ñu juger ndaxte kii wax dafa la wax te mu ni moom am naa ay firnde mën na maa joxe ay firnde fu muy joxee firnde ya foofu la war a joxe firne yi ki mu tuumaal ni ko yow li nga wax du dëgg kon nañ dem ñoom ñaar ñëpp rek dafa nga xam ne fa la yoon nekk benn ñu àtte leen mu jeex waaw mais mais mais mais précipitation bi nga xam ne am na ci même avocat yi Ousmane Sonko yi ñaawlu nañ ko nee nañu procès en appel bi précipitation daf cee daal di daf cee daal di am. yàkkamti xam nga yàkkamti moom da cee am wala wala yéex da ci bu yéexee ñu ni affaire bi dafa yéex naruñu ko def bu gaawee ñu ni pourquoi ñu gaawal ko. Mhm. xam nga loolu moom. daanaka mbirum politique la. bu yéexee ñu ni dafa yéex ah ñenn ñi leen ah le temps de la justice ce n'est le temps ah nangam nangam bu gaawee ñu ni kaa ñu gaawal ko kon daanaka affaire bi day day xaw a jafe li woykat bi waxoon boo yéegee ci mbaam mi ñu ni sax boo wàccee ñu ah affaire bi day jafe est-ce que d'accord nga que d'accord nga projet en appel bi yow du sama affaire man mais sa gis-gis ak jàmmi réew mi tension bi xam nga jàmmi réew mi jàmmi réew mi mooy la ñu waxaat sànq rek jàmmi réew mi képp ku fi nekk di saaga wala di tuumal ay nit dañ laa war a yóbbu ci yoon. loolu mooy jàmm réew mi. dëgg ah dafa mel ni kaani gu ñuy sànni donc donc il faut mu saf kaani loolu moom jàmm réew mi ah, xam nga faj il faut mu metti ab góom boo koy waree faj il faut mu metti kon jàmm réew mi warta tax ñu bàyyi nit ñi ni ñuy wax lu leen neex def lu leen neex di saaga nit ñi dëkk nit ñi fu ñu dëkkul loolu du jàmm réew mi képp ko ko fi def loolu baaxul yow booy def politique da ngaa war a doon exemple ci sa taxawaay ca sa waxin ak ci di ngay defee mais saagaante tamante loolu du dëgg du yoon ci Sénégal comme ni ñu koy wax benn bopp la ñun ñëpp ay mbokk ñëpp ay mbokk lañu dëgg la kon doon ay mbokk kii far fii kii far faa loolu du wàññiwul dara du tere wàññiwul dara d'accord jërëjëf euh, Fallou Guèye yow nga nekk porte-parole euh, RTAS Euh, rassemblement euh, des travailleurs africains sénégalais euh, nga bokk ci coalition benn Bokk Yaakaar dafa am loo xam ne fàtte woon nañu ko ci candidature président Macky Sall dafa am ñoo xam ne dañu njort ne ñenn ci waa bitim réew ànduñu si ñu si mel ni Amérique ak njiitu réewum France di Emmanuel Macron beneen bi aussi ñoom waa Pastef ñoom dëggal nañu ne am nay waxtaan yu dox seen diggante ak ak Élysée lu ci sa xalaat waxtaan yi doon diggante Élysée ak ak waa Pastef ah waaw loolu xëy na xëy na am na loolu de xaw ma ban xalaat laa ci war a mën am lu loolu moom jàpp naa ni bof lu lu war a mën a lu lu war a mën a am la ndax daanaka su fekkee ni France comme ni nga waxee sànq rek investisseurs yi dañuy ñëw di investir suñu réew yi mhm. donc français yi dañuy ñëw ñeneen ñi dañuy ñëw di investir alors bu fekkee ne nag les chefs d'État surtout français que ñëw aussi ñoo am intérêt ci Sénégal élection war a jub am ay candidat potentiel candidat yoo xam ne ay candidat potentiel lañ war nañu mën a xam ñoo ñan lañu candidat potentiel yooyu ñan ñan ngir ëllëg bu ñu faloo ñun ñi ngi xam ne dañoo war di investir ci réew moomee ah suñu intérêt nekk ñoo ñu mu doon kon loolu jàpp naa ni lu lu am la mm-hmm. historiquement parlant sax day am entre français ak tous les pays africain yi nga xam ne nii comme ni ñu koy waxee ñoom am nañu intérêt ci réew africain yi ci parce que dañu fi investir hmm. donc loolu loolu loolu amul problème hmm. le fait donc ñu nii réew yi nekk bitim réew ànd nañ ci wala ànduna ci li am solo mooy ñun suñu souveraineté ñun doomi réew mi ñoom moom suñu réew doomi réew mooy tabax réew comme doomi réew mooy tabax réew ñun suñu wàllu bopp nañu ànd ci loolu wala ñàkk cee ànd d' accord jërëjëf euh, Fallou Gueye yéen waa RTAS est ce que jox nañ leen seen cër seen gëdd considération respect ci biir benn bokk yaakaar. xaw ma looy tudde gëdd ak respect waaye am nañu yaakaar naa ni. mooy ñu fonk leen comme ni ñu joxee yeneen parti politique yi ay poste de responsabilité di leen laaj seen xalaat. waa xam nga ñun nag loolu moo moom la ñu bari ñu ñu bari di di di di xom xase wala wala. yedde di yedde que yéen daal. yéen moom amu leen dara wax dëgg nag dañ dul laaj dara ndax comme na bëggut waa xëy na sax bañuñu mais ni ko ñenn ñi defee dañoo politigul ngir suñu bopp kon lu tax demu leen faree ci askano bañaan na ak nguur gi mooy li ma la wax rek politigu ñu ngir suñu bopp ngir doon dara ndax kenn ku ci nekk xëy na ci ñun kenn ku ci nekk am nga dara mais kon lan moo tax demu leen ci opposition bi di ñaxtul askan wi di wax jafe-jafe askan wi. non parce que li ñuy politique askan wi moo tax. kon bu ñu gisee ni askan wi kat am na ay politique yoo xam ne nii njariñu askan wi la dañoo war a ànd ci loolu mais waruñoo dem ci opposition bi di xeex loo xam ne nii njariñu askan wi la <laughs> loolu amul benn sens. Hmm. kon li am sens mooy ñun. li ñu soxal rek mooy lépp loo xam ne nii njariñ la ci askan wi nañ ànd ci loolu mais lépp loo xam ne du njariñ ci askan wi buñ ci ànd waaye ñun suñu cubu bopp yow nga doon dara du tax communauté bi doon dara yow ngi seppi la def la dara ci loo xam ne ni alal réew mi la amoo compétence ba waraloo ko am te ñeneen nekk fi ñoo xam ne mën nañ koo doxal li am solo mooy ñu doxal loo xam ne nii. kon yéen da ngeen a amul communauté bi mën na cee am. amul ay cadre yu mën a dugg ci gouvernement wala mënut a yor ay direction xam nga ay cadre yu mën a dugg ci gouvernement xëy na gis nga fi ñoo xam ne nii sax ñu ngi ci ñu ngi ci direction wala ñu ngi ci gouvernement lu leen ci dugal confiance lañ président bi li am ki nga xam ne mooy nommé moom am confiance ci ñoom du dëgg mais euh, ku ci mel ni ku ci mel ni Momar. ah ku ñu mel ni Momar Samb mi ngi woon conseil économique social et environnemental tey. jëlee nañ ko fa jëlee nañ ko yóbbu ko au conseil xëy na mënoon naa doon ministre wala mënoon naa waaye ku mel ni moom wala ku mel ni man du ci kenn koo xam da ngay dem président di ko déey naan ko def ma lii wala def ma laa li am solo mooy ndax li ñuy doxal ci réew mi am na njariñ ci askan wi dëgg la wala du dëgg man sama wàllu boobu cadre laa jàng naa ba doctorat damay damay enseigner université. Mm-hmm. waaye am naa dama am école tamit ci réew mi. Mm-hmm. immigré laa woon nekkoon état doon jàngale foofu ci et ci université yi. kon cadre bu dee loolu la ñuy wax cadre cadre la mm-hmm. waaye li ma la wax mooy ci li ma ne. waaw mais sànq danga tudd ba tudd confiance lan moo tax président bi dafa mul si yéen confiance wala dara. déet non xam nga ci ma bëgg la wax ci li ma ne doy na ma sëkk wax dëgg doy na ma sëkk. maa ngi sant yàlla. mais loolu c'est c'est personnel. waaw c'est personnel moo tax ma ni la moo tax ma ni la moo tax ma ni la euh, nu ñu koy wax sax gourmand wala wala bëgg lu bëri foqali baaxul bëgg a jël lépp te muy yëpp te te réew mi du dox amul benn sens li am sens mooy njariñu réew mi njariñu askan wi présidence ci boppam nag moom moo am pouvoir nommer ak bañ a nommer gis na ni. Momar Samb kat fa mu gën a ne xëy na mooy ca foofu au conseil mu yóbbu ko foofu nekkoon na ca conseil économique social environnement mu jël ko yóbbu ko foofu kon loolu rek mooy mooy li am solo. waaw mais yow mën ngaa yow mën ngaa gis-gis bi nga am Momar man naa am gis-gis boobu mais jeunes yi ànd ak yéen est-ce que dinañ am gis-gis boobu. dinañ ñenn ñi dinañ ko am ñenn ñi duñ ko am ndax xam nga li ma la wax sànq wan duñu naa la ko sànq xam nga jamonoy tey ay militants amatul. te ñun dañoo ñoo ay militant la ñu woon dañoo formé ci militant ñun ba ñuy xeex doon ay ndaw ah mhm. légalité amul woon dañoo ruur ci suuf doon ay nekk ci clandestinité ci loolu la ñu ci loolu la ñu naam ci loolu lañu ñu jàngi politique mhm. kon bañ koy def sacrifice esprit de sacrifice ah sam jàng sax sam jàng sax du sa priorité askan wi mooy priorité loolu lañ ñu jàngal ci loolu lañ ñu formé kon bu fekkee ni loolu la li am solo mooy li ñuy xool toujours mooy ndax politique yi am ci réew mi njariñ la ci askan wi wala du njariñ ci askan wi bu fekkee njariñ la ci askan wi nañ ci ànd bu fekkee du njariñ ci askan wi buñ ci ànd ndawi tey yi nag loxo naa la ko sànq bari na ci ñuy xataraayu ak a xeex ak daji teg seen bakkan xamuñu li ñuy xeex jàpp nañu ni bu diw faloo rek ñoom seen seen bàmba na seen da danañ falu ndax loolu dong moo leen ci dugal kon parce que gis nañu ni politique bi moo nekk carrière la tey carrière nit ñi carrière lañ ko def kenn deful loo xam ne nii ngir mën a tekkil sa bopp mais jàpp nañu lii te lii tax nga tekki mooy nga dugg ci politique bi lii tax nga tekki mooy nga ànd ak ma sàmba wala nga ànd ak ma demba di woo ko yor di ko yor loolu dong lañ lay wax mm-hmm. kon loolu mooy li nga xam ne nii tamit beneen fitna la boo xam ne moo am ci réew mi ndax bu fekkoon ne am nañoo ay militants ay jeunes yoo xam ne ni am nañu éducation politique bi dinañu am dal gi parce que bu boobaa débat yi ak waxtaan yi ak xeexoo yi ak dis ak ay débat la yoo xam ne ay débat d'idées lay doon mais du doon ay débat saagaantaak saagaante ak defan ah, di di den d'accord jërëjëf euh, Fallou Gueye euh, ñu wax ci li nga xam ne mooy euh, révision exceptionnelle liste électorale yi 2024 primo votant yi jamono ji ak ñi nga xam ne ñooy soppar ñi lieu de vote yeeg jamono ji gaa ngi ci mbind mi société civile bi jàpp ne benn weer dafa tuuti nañ ko yokk buñ jàppee ni dafa tuuti ca ñu gis que ni tuuti na nañ ko yokk ndax li am solo mooy ñëpp ñu bëgg a ñi nga xam ne nii mën nañoo voté ci bëgg a ñu may leen ñu voté ndax loolu mooy démocratie loolu mooy dëgg loolu mooy yoon ni ñu war a bañ a xañ kenn mu ni man damaa bëgg doon président loolu lañu war a bañ a xañe doomi réew yi ñu def seen ay choix que ni man du ñoom dañoo bëgg a voté loolu sax luy war a neex Sénégal lay doon gis ni doomu réew mi tey jóg nañu ñoom ñëpp. bëgg a bëgg bindu bëgg def seen choix de def seen choix loolu lu baax la loolu lu baax la kon su fekkee ni loolu pour ñu amal ko il faut ñu yokk euh, délai yi. ñu yokk ko kon nañ ko yokk. ngir ñëpp mën a bindu ñëpp mën a bokk aspiration bi. loolu mooy loolu mooy tax démocratie di yi loolu mooy tax ñëpp mën a gis seen bopp ci li nga xam ne nii moom mooy am parce que dañu ni deux mille vingt quatre nañu tànn. na doomi réew mi yëpp tànn kan na ñu bëgg mu jiite waaw kon bu fekkee loolu mooy wax bi kon nañu bàyyi ñëpp ñu bindu ñëpp ñu mën a tànn ñëpp mën a xam ni kat ñun ñëpp ñoo tànn kii jiital ko ngir mu yoral ñu suñu réew. waaw jërëjëf euh, fàllu Guèye président Macky Sall fan yi génn ci conseil des ministres dafa wax ci lu jëm ci wàllum euh, wàllum mbay mi mu ne euh, campagne agricole bi mille vingt 2024 bi yokku maanaam yóbbu na ko daal ba ba cent milliards. Euh, wax na timit ci lu jëm ci wàllum euh, entrepreneuriat ak euh, ak ndaw ñi est-ce que jàppoo ne daf cay yeex walla ba léegi. vaut mieux tard que jamais xëy na daf cay yeex walla ba léegi vaut mais def ci dëgg-dëgg day li ma mën a seede mooy depuis 2012 bi mu nekkee président jógul ci di yokk li ñuy jënd gerte gi saa yu ne la mu ne woon première fois ba sax en 2012 ba mu ñëwee. lam ko ba mu koy yokkee yóbbu ko deux ans ñëpp dañuy waaw fii di mu ko yóbbu bari na. te booba léegi jógu ci. kon wax dëgg bu fekkee nii day yokk mi ngi nekk di yokk rek xëy na sax bu ko deful woon ñu mën a wax waaye de kon jàpp naa ni lam defoon rek lam tàmbalee woon ci loolu rek la continuer di def. Hmm. waaw. d'accord euh, mais lu jëm ci wàllum euh, napp gi aussi gis nañ ne fan yi pêcheurs kayaar yi ak yu mboor yi jàppante nañ ba président Macky Sall aussi ci conseil des ministres wax nañu encadré li nga xam ne mooy pêche artisanale bi waaye nappkat yi ñoom dañoo jàpp ne licence de pêche yi la ñu waroon ak accord yi Sénégal signé loolu lañu ñu waroon audité ngir mu leer ndax jàpp nañ ne ñoom loolu moo tax géej gi manqué jën. xam nga xam nga loolu moom dëgg loolu moom lu ñu war a def la licence de pêche yi mais xam nga euh, lu jiitu sax. 2012 lu jiitu 2012 balaa Macky euh, président Macky Sall di ñëw même sous Ablaye Wade jafe-jafe yooyu da ko doon am diggante pêcheur sénégalais ak pêcheur mauritanien mm-hmm. ci problème licence kon doo loolu nekk na euh, mbir moo xam ne nii mbir mbir mu yàgg la diggante pêcheurs yi ak diggante nappkat yi parce que mais leneen li ci am mooy suñu réew yi ñàkk doole gi nga xam ne nii am nañ ko ba réew yi nga xam ne dañuy napp am ay moyen yu rëy rëy industrialisé yoo xam ne nii dañuy ñëw ba suñu. waax yi waax jël suñu jën yi loolu lu am la ndax am nañu kàttanu. surveiller ko ko kàttanu xeex loolu loolu mooy problème bi et loolu nekk na loo xam ne jafe-jafe la et jafe-jafe la boo xam ne nii bu Sénégal am ak yeneen réew yu bari yoo xam ne nii am nañ ko kon li ñuy def rek mooy nañu gën a mën a. dooleel suñu bopp gën a mën a tabax suñu bopp ba nga xam ne nii li nga xam ne moom la ñu bëgg muy souveraineté alimentaire ci jën comme niñ ko doon amee démb am jën yu doy am lépp lu doy ca doomi réew mi di ko jël yi di ko indi ci biir réew mi loolu mooy li nga xam ne nii ci lañ war a jëm moo ñuy permettre que ñu mu am doole goo xam ne nii dañu mën a aar suñu waaxu bopp ba nga xam ne nii jën yi fi ne dinañ ci mën a jël lu doy ngir dundal suñu réew et li ci des ñu mën ko yóbbu bitim réew ngeen mën cee am koppar. jërëjëf euh, Fallou Gueye ñu lay sant di la gërëm. maa lay gërëm di la sant du xaaral bu baax a baax ci waxtaan wi. Euh, tubaab fakkaat la li ci ñor rek mooy waxtaane suñu réew ndax loolu dong moo ñu ñor ci askan wi rek moo ñu ñor kon ni ñu koy waxee saa yu nekk rek parce que ñun dañoo jàpp ni réew mi ñun ñëpp dañ ko war a pencoo dañ ko war a pencoo waaye waruñu koo paacoo moo tax li ngay wax ay nit bu bu ñu leen falee ñiy paacoo alalu mi. Hmm. dañ leen war a xalab. lañ leen war a xee ak fu ñu mënti bokk nag ak ku ñu mënti doon. ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf euh, Fallou Guèye mbokk yi moom mooy euh, porte parole bu euh, parti RTAS mbokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu koy jëfal bu baax a baax am mbégteeg kontaante si émission bi ak disponibilité bi nga xamante ni am na ba déplacé wu ñëw ngir ñu waxtaanee réew mi comme ni mu ko waxee mbokk yi li moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot. bu 15 euh, heures jotee jàpp 16 heures Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm machine bi jërë jëf jàmm ak jàmm machine bi jërë jëf jàmm ak jàmm machine bi jërë